tey moom kàddu yi kàddu remercier la xëy na du gudd euh, ren dañu ñëwoon comme ni ñu ko daan defee at mu nekk depuis 2016 di organiser journée don de sang suñ borom dafa def 2016 mouvement Madakaw euh, dañu demoon rencontre ji hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu fekk fa suñu yaay ji toog madame Ndiaye waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi nga xam ne hôpital bi mi ngi koy am par rapport ak population ba Touba bi ñu ko ko waxee mu xamal nañu ne seen banque de sang bi dafay manqué direct lu bari parce que hôpital Matlaboul Fawzeyni banque de sang bi dafa bari lu muy servir deret parce que booy xool fii su région bi rawatina département bi ba ci région de Diourbel yëpp moo leen di jox daanaka bi ñu waxtaanee ak moom nag mu gën ñu xamal nañu bu ñu yegsee ci màggalu Touba maanaam dañu am jafe-jafe bu baax a baax ci wàllu deret ñun nag au nom de Madakaw bi ñu ko waxee 2016 ci la ñu jaayante woon ak euh, responsable banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bi di madame na ko bu soobee yàlla màggal gu ñëwati bu doon te ne cent poches de sang la Madakaw dina ko jàppale banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni ren nekk neuvième édition bi parce que depuis 2016 ñu koy def sëñ borom it ngi suturaal ci jaayante bi nga xam ne amoon nañ ko ak ñoom at mu nekk dañu am réussite totale parce que sànq la may woo di ma xamal ne ma hôpital bi li ñu joxoon ci sandis ak euh, boisson muy cent poches yi mat na kon loolu day wane ne am nañ cent personne fi ne nii te ñu ngi continuer di maye kon loolu ñoom seen déplacement réussite totale bi mooy ñu am 73 poches bu ñu amee 73 am mooy seen bu doon tane sax benn poche de 100 la ñu am am nañu réussite parce que benn poche de 100 boobu dana sauver vie waaye bu ñu amee 73 poches mooy réussite totale te yàlla suturaal nañu ne am nañ 100 poches kon day liñ jàpp ne lañ ko daan euh, bëggee ak nañ ko daan defee at mu nekk suñu borom suturaale nañu ñu amee ni ko ren. Euh, journée bi nag depuis 2016 ñu du ko def dañ ci am ay partenaires yoo xam ne dañu koy ànd ak ñoom chaque année ñuy ñëw di ci taxaw di ñu ci jàppale. parce que gis na ngeen fi ñu koy defee plein air la Touba dafa néew ay salle ferme yoo xam ne mën nañu fa def ay journée organisation doo de sang yu mel nii parce que bari na ay association sax yu nekk ci dëkk bi koy bëgg def mais seen problème mooy mooy yi leen ciy fekk si parce que gis nga tey Madakaw boo ñëwee fii da ngay xam ne def na fi dara ndax dañoo ñu luyee suñu base décoré dem wut ay clim wut ay ventilateur lu nekk ñu def ko ngir rien que ne pour satisfaire donneur de sang yi nga xam ne dañuy dañu ci jàppale dañu ci taxaw di ko ànd ak ñun Serigne Cheikh Ibrahima Mbacke mi nga xamante ne si ne tey képp ko xam Serigne Mountakha xam nga ko at mu nekk mu ñëw di ko ànd ak ñun gis ngeen ko sànq nii la fi jógee ñi ngi sant bu baaxit euh, directeur hôpital euh, Matlaboul Fawzeyni di Matar Lo vraiment moom taxawaay bu am solo lay am ci si journée bi depuis mu xam taxawaay bi Madakaw am ak euh, banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni journée bi da koy ànd ak ñun dañu ci jàppale bu baax a baax noonu la ñuy santee docteur Souran bi nga xam ne moom mooy hôpital Cheikhoul Khadim barki démb daf ma woo ma ñëw mu yëkkati xaalis bari jox ñu ko wax dëgg yàlla jàpp ko ci bis bi na ma dinaa ko ànd ak yéen te incha allah rabbi fii maa nga fi nekk dinaa ko ànd ak yéen waaye du ñu fàtte it jigéen joo xam ne jàmbaar la taxawaayam rafet loolu muy MCD di docteur Ndeye Maguette ñëpp rafet lu taxawaayam ci wàllu santé ci dëkk bi depuis mu yëg ne Madakaw day taxaw bis bi ma ànd ak sama frère Serigne Ndiaye Diop mi dem fa ba léegi moo fi njëkk yeble fi délégation ñu ñëw représentant mi ngi ne toog day ñëw ànd ak ñun journée bi ba mu jeex mais yamu ca képp kum xam ne mën nañu jàppale ci journée bi ci moyen financier dañu ciy jàppale ba ci ministre Marie Khemesse Ndiaye daaw moom ak Serigne euh, Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ancien ministre de la santé ñaari at yëpp depuis mu yëg ko Serigne mi mooy def délégation ñëw ànd ko ak ñun ministre de la santé bu bees bi xam nañ activités yi ak xataay gi yëgal nañ ko ko mais Serigne Ndiaye mi bu ñëwee ci wàllu santé ñun jàpp nañ ne ñëpp ñëw nañ parce que xam nañ taxawaay bi mu am ci santé mi ngi ci suñu wet di ñu jàppale képp koo xam ne soxla nañ ko bëgg nañ faa dem nii la ñu accompagner di ñu yóbbu ba ci moom ñuy waxtaan ak moom mu ñu jàppale ci suñu bis bi nag objectif bi leen rek la mooy au de Madaka mouvement moo koy def Madakaw nag mouvement boo xam ne ngi ci département de Mbacké comme ni ko Cheikh Ibra waxee léegi suñu activité ko créé 2016 la ñu commencé journée de sang bu ñu xoolee li ñu xam ne jàppale gu nañ ko hôpital Matlaboul Fawzeyni parce que mille et quelques xamante ne si ne Madakaw ko ci neuf neuf ans yi nga xamante juróom ñeent at yi jàppale ko banque de sang hôpital Matlaboul Fawzeyni te loolu moo gën a néew ci activité sociale yi nga xam ne Madakaw da koy def kon loolu jàpp na ne firnde la ci li gën a wane ne objectif bi ba tax ñu créé Madakaw ba tey ñu ngi continuer ci même lancé boobu ñu ngi tàllal loxo nag doomi département de Mbacké gépp ci mouvement Madakaw ñu ñëw ànd ko ñun mais ñu ngi sant bu baax responsable yi nga xamante ne si ne ak membre Madakaw muy góor muy jigéen gis ngeen leen ñoo nekk nit ci sama wet chaque année nii la ñu koy ànd ak ñoom ba mu jeex tàkk bu doon tane man rek mënuma ko mais ñoom ñii ñoo ñëw di ci jàpp Ousmane Mbaye ngi nii Fallou Mor Fassé mi def délégation ñoom ñëpp mobiliser dikk di ànd ak ñun ba mu réussir lenn lañ ci sàkku nag mooy ngërëmal Serigne. am mooy parce que askan bi ñoom xam nañu ñoo xam ne dañuy wax ne bu namee yéenee maye deret ci màggal gi ñu xaar parce que bari na ay koy def nag mais du annuel maanaam dañu koy def ren bu déwénee dañu ko def mais ñun suñ borom suturaal nañu première édition bi ñu amee woon 2016 ba ñu nekk di 9 ans chaque année dañu koy def loolu nag bokk na ci li nga xam ne mooy gën a motiver donneur de sang yi nga xam ne nag dañu leen am comme ay partenaires chaque année ñuy ñëw di dikk di maye la ca des communication lay laaj ndax bu bis bu jubsee ñi ngi ci rajo yi ñu ngi ci panel yi ñi ngi waxtaan ñi ngi defar affiche yi di envoyé di def lu nekk ñi ngi yor téléphone yi di wax xarit yi am di jàmm yi ñëpp di ñëw di ko ànd ak ñun loolu rek la ndax euh, don de moom yombul communication ngay def bañ a tàyyel te it mooy ma wax léegi équipe bii kenn ku ci nekk ci ñun bu doon ne am nga benn ba ñaar ba ñetti xarit yoo xam ne bu ñu yegsee ci bis bi mën nga jàpp seen loxo andi leen ñu ñëw maye dara te yàlla tax. parce que amul bët bu muy xool homme politique ñun kuñ mën a àndal ci àdduna ci dëgg la ñu ànd ak yow ci ngoor la ànd ak yow li ñu jiital ci suñu digg ak yow parce que tey Madakaw 2013 bi ñu ko créé Karim Wade lañ jàppale di ko xeexal ba mu génn ci kaso bi dem 2016 bi mu génnee dem Qatar ci la ñu ñëw xamoon ne dañu am suñu objectif mooy développement social. ñu ñëw rejoindre 2016 ci président Macky Sall 2016 ba président Macky Sall bi mu daanoo ci la ñu nag resté opposition bi xam ne munu ñu fi nekk nag il faut que ñu téye suñu dignité ak suñu ngor na nguur gi fi ñëw ñu dem ñeeti ko suñu borom a yëkkati woon nguur te ko ci suñu loxo moo ko jeexal. teewul ñun ñu nekk tey jii parti au pouvoir jàpp naa ne ñoom laa gën a jege ñu nekk parti opposition parce que Madaka amul xaaj ak seen ñun nag ñëpp bokk ndey ñoo bokk boo xoolee rek opposition bi ki njëkk ñëw léegi nii membre Pastef bi mu ñëwee daf maa wax ne deret Pastef laa lay jox ma ne ko fii deret Amadou Ba fi am loolu ay relation la yu ñu am amitié ci suñu diggante boo xamante ne si ne Madakaw dafay wane ne ne àndewul ak kenn couleur parti ñun niñ àndee ak nit mooy activité bi ñam suñu activité principale mooy social développement parti au pouvoir opposition képp ku yëg na yaa ngi ci jafe-jafe te ñu mën ci dara danañ ko ànd ak yow dox ko ba mu jeex la preuve tey am nañ plus de cent postes de cent wax ne cent postes de cent la jëm ci dereeti Pastef kon bisu tey ji rek war na na ci firnde na Madakaw mouvement la boo xam ne askan wi la fi nekkal. Euh, maa ngi tudd Mbaye Diop di président association Andobes association nationale des donneurs bénévoles de sang section Touba ma jiite ko fii. suñu teewaay du dara fépp foo xam ne si dañ fay organiser don de sang lu mel nii muy wàllu wérgu yaram rek ñun dañ fay teew ñun xaaruñu nga wooñu xaaruñu nga invité ñu ndax lii jàpp nañu képp koy def ñun nga koy defal moo tax ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp. bi dëppoon ak màggal gi wax boo ko seetee. wàccaay bu ñu nee wàccaay da ngay wàcc lépp ndax booy dem xare lépp ngay wàcc da ngay yor say jaas yor say gobar yor saw fas nàmm sa bopp tàggat sa bopp boo mu mën a dem ca xare boobu moo tax màggal Touba gi xare la ci ñun bépp ndaw boo xam ne dëkk nga Touba te ñun ñëpp xam nañ ni xataayu màggal gi euh, dana jafe pour nga dem di maye deret moo tax ñu teel koo waaj duy banque de sang yi mu am deret duy banque de sang yi deret am fa la maximum ba bu blessé amee ndax ñu ñëpp xam nañ ne oto yi ñooy indi nit ñi te feebar yi day bari ci dëkk bi ak ñi nga xam ne si chirurgiens yi nga xam ne dañu nekk Sénégal yëpp war a tasee Touba war a ñëw pour opérer nit ñi gratuitement dañuy soxla deret moo tax ñun en tant que association Ando Bess en tant que mouvement Madakaw ñu jël suñu deret di ko maye te yàlla tax ndax boo ko seetee ñun ñi nga xam ne dañuy mayekati deret dëgg-dëgg dañuy maye mais xamuñu kan lañ koy may mën naa nekk ñun ñii di wax yéen mën naa nekk boo ci association bi mais moo tax ñun ñu teel a jug fagaru na ko sëriñ saaliw waxee woon laa leen di waxaat rek képp koo xam ne yaa ngi jug di maye sa deret na nga xam ne man nga ko defal man mii de su ma ko mënoon a def maa koy defal sama bopp wante damaa xam ne su ma ko defee loraange dana ci bari dana am bari ñoo xam ne ko jéem te duñu ko man te waxi sëriñ Saliou dëgg la si kaw nga koy dëggal ndax sëriñ Saliou tamit nee na képp koo xam ne si jël nga maye deret jaamuwoo jaamu yàlla gu gën a màgg li maye deret ndax maye deret mi ngi mel ni jot bakkan te nit boo xasee ba jot lépp lu sosorooti moom wala lépp lu mu askonootee rek xamal ni yow yaa ko meññ imam baa nga ca président de la république baa nga ca sëriñ baa nga ca keneen a nga ca te kooku bi nga koy def yàlla moo taxoon nga koy def mais xamoo kan lay doon pour ëllëg. waaw Madakaw liñ ci yëkkati mooy ni ma ko waxee woon daaw noon laa koy waxee ren rek di leen jaajëfal ni association yi si Touba gépp rawatina association bu juddu tuubaa rek war ngaa def ni Madakaw bokk. moom ak liggéey bi ne xam naa association yi Touba yëpp buñ dajee daje woon tey jii nii kon fii kenn du fi xaj na kenn ku ne gëm ni lii Galass Diop di def sa bopp la koy yow la koy defal te bu koy def te dëkk bi tax ñun waa dëkk bi ñun jeunesse dëkk bi ñun association yi dëkk bi war nañoo mën a góor góorgóorlu bu baax a baax a baax de ce fait que ñun defuluñ ko hôpital rek mais suñu bopp lañ koy defal parce que hôpital ña fay liggéey ay malade waa dëkk bi dañuy liggéeyal la la ñuy faj ak ñi nga xam ne sii dañoo dëkk li wër dëkk bi muy hôpital yi nga xam ne sii dañuy ñëw di wut si deret si banque de sang yi nga xam ne daa nekk fii muy Matlaboul Fawzeyni muy banque bi gën a mag si Touba. kon yaakaar naa ni bés bii di Gallas Diop def ñun dañ koy encouragé di ko félicité ni ko sëriñ bi di waxee rek bu ñu fekkoon télé lañ bu fekkoon ñun ab télé lañ dañuy xëy di def reportage si Gallas Diop parce que lu baax lay def lu baax la xam te lu baax lii muy def nii yàlla na ko yàlla fay. Euh, fay ko bépp jeunesse boo xam ne si ànd nga ak moom liggéey bi ndaxte du galas rek am na ñeneen ñu nekk si ginnaaw galas ndax boo xoolee bu ñu nee la mouvement du benn nit xëy na galas moo nekk ci bopp bi mais ay jàmbaar lañ ay fàkk tëdd lañ loo xam ne fukki at ak ñeent ñu ngi koy def fukki at ak ñeent ñu ngi ciy góorgóorlu te xam naa li ci organiser don de sang xam naa li ci organiser événement mais lépp dafa koy muñ muy alalam muy jotam muy taam te yàlla rek moo tax yàlla na ko yàlla ak sëriñ bi fay ni ko sëriñ bi waxee léegi ni jóge bi ndax ñun kontaan nañ suñu xel gën naa dal ndax léegi la fi jarbaat sëriñ Muntaxa jóge suñu xel dal mu wax kàddu yu am solo mu ni képp koo xam ne yaa ngi jël nit sa deret di ko may nit waatal wàcc mën nga koo may sa bakkan te ñun gëm nañ loolu war nañoo mën a dem a dem a dem ba lu raw deret ñu maye ko doomu aadama pour doomu aadama ba dund parce que nit li mu mën a maye tey bi dund bari na rein yaa ngi fi lépp a ngi fi te ñun ñëpp xam nañ ni euh, dialyse yi bëri na te deret jii ñuy kii balaa nga ko xam nga nekkoon hôpital rek ngay xam ni ñii lu leen nit may ci deret doyul. parce que ñu demee nii ñu koy jël si ña nga taxaw ak seen i glacière di xaar lii sax mën na see bañ a sax fekk màggal gi ndax waa dëkk bi si boppam. ni ma koy waxee rek fagaru moo gën faju na nit ñi di dem si hôpital yi di xool seen jàngoro di xool bu baax a baax lu leen dal ndax boo teelee dem ñu faj la di nga mën a continuer di maye sa deret te yàlla tax te lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek na si jiital suñu borom na nga ci jiital yàlla moo tax mouvement Ando Bess bii ñëw tey taxaw ànd ak mouvement Madakaw ànd ak waa Matlaboul Fawzeyni ñëpp maye deret te yàlla tax. man la madame Ndiaye soxna maam faat Diop moom Serigne Saliou Mbacke chef service banque de san sang hôpital Jannatu Mahwa. te yàlla julli ci yonent bi sant suñu waaju ñu ngi sant suñu sëriñ ba sëñ Saliou yàlla nañ ko yàlla fayal ñu jógee Fawzé ni ñëw sëñ Fallou ma Madakaw di organiser journée don de sang di ko def ci weeru safar gi ngir jàppale ñu ci banque de sang bi pour euh, màggal gi ñu mën a am dotation bu doy ci deret fi mu ne am naa 100 poche maa ngi ci poche bi donc xam naa ne dañ fi amee ay 105 110 loolu lañ fi am at bu nekk dañ koy yóbbu banque de sang après ñu def ay analyse ku ne xam na ne booy mayee deret anonymement dafay am ay numéro ci yaa ngi nii su ñu yeggee dañuy manipuler groupage sanguin bi bu ñu paree ñu def sérologie bi bu baaxee ñu soog ko étiqueter ranger ko su ko malaat bi soxlaa ñu soog ko koo jox.